tali diggante bi dox Kaffrine ak Nganda lii doon ab jàmbat bu ay at yu bari askan wi di ko jàmbat Mohamed Boun Abdallah Dionne ilimaani jëwriñ ji dendandoo ak Abdoulaye Daouda Diallo jëwriñ ji yore wàllu dem ak dikk bi moom ilimaani jëwriñ ji di doxal ndoorteel liggéeyu tali bi Kaffrine Nganda loolu la ñëw tey fii taxaw si pour départ démarrer liggéey bi lii ngeen doon jooy ñeent fukki at ñu andi ko tey njiital gouvernement bi di xam ne ni nguuru Sénégal nisër na defar lim bu takku ci ay yoon ci biir réew mi. li jógee Wakunguna di dem incha allah ba frontière gambienne Saboya am na yeneen tronçon yi ci réew mi yoo xam ne incha allah ren bëgg na ko tàmbalee. loolu Kaffrine Mbacké tali bi baax na wante président nee na dina ko defaraat bu bees tax incha allah. Fatick Foundiougne Passy. ci ruq bi fii incha allah ci Saloum ak Sine président nee jox na ordre gouvernement bi pour ñu defaraat ko. ci jotaay bi ñu doon amal ngir doorteel liggéeyub tali bi dox diggante kafrin ak Nganda nguurug senegal jébbal askan wi ci kafrin juróomi minibus. gaar yu bees yële nga xam ne moom la président jagale waa Kaffrine. muy gaar yoo xam ne euh, bu doon jar million million bu nekk. président ak état Sénégal jël na quatre cent cinquante mille maanaam genn wàll nga def ko subvention. moom Ilimani jëriñ ji di xamle ni nguuru Sénégal balaa yàgg dara dina dalloo ay jumtuwaay yu takku ci wàll dema dëkk bi ci barab yu fasantikoo. moo fara feñe incha allah altine président dina ko inauguré bu fa jógee Samba Dia côté yooyu yëpp Joal foo tali bu bees tax la fa def dinañ ko inauguré. buñ ñu fa jógee inauguré nag autoroute bi nga xam ne man ci laa jaar bi may ñëw jógee dakaar ba Mbour pare na. bu ñu ko inauguré président ci boppam dina teg xeer wi nga xam ne mooy jëlee autoroute bay boobu pare jóge ko Mbour andi ko incha allah ba Kaolack autoroute bu bees la nga xam ne daanaka booy ñëw. loolu Kaffrine Mbacké tali bi. baax na wante président nee dina ko defaraat bu bees tax incha allah Fatick fu ñuñ pasi ci ruqu bi fii incha allah ci Saloum ak Sine président nee na jox na ordre gouvernement bi pour ñu defaraat ko ah defe naa ne altine soreetul dinañ gis président Macky Sall moom ak président Barrow ci Gambie mu tàmbalee tijji liggéey bi nga xam ne ñaari at réew yi ñoo ngi ci doon liggéey di pont Farafenni nga xam ne bu la neexee léegi boo demee ba Gat Ayib continuer ak sa oto doo taxaw dem ba Casamance pour suñu mbokk yi nga xam ne it ñoo ngi dëkk boor yi Sédhiou wala Bignona wala Ziguinchor wala Kolda loolu incha allah altine. président dina ko inauguré bu fa jógee dina dellu si fii ci Saloum dem ba Sine Samba Dia côté yooyu yëpp Joal foo tali bu bees tax la fa def dinañ ko inauguré buñ fa jógee inauguré nag autoroute bi nga xam ne man ci laa jaar bi may ñëw jógee Dakar ba Mbour pare na autoroute boobu ku ñëw fii dem Kaolack jóge Dakar war a ñëw ba Kaffrine boo ci jaaree ah defe naa ne kooku ilaa Mbour boobu mën nañu wax ne mooy ilaa Kaffrine autoroute bu baax bu bees dinañ ko inauguré buñ ko inauguré président ci boppam dina teg xeer wi nga xam ne mooy jëlee autoroute bay boobu paree jóge ko mbuur andi ko insha allah ba Kaolack autoroute bu bees la nga xam ne daanaka booy ñëwee ci Kaffrine autoroute ngay daw jóge Dakar jaar mbuur continuer ba at si Kaolack loolu président insha allah dina ko inauguré li ci des mbuur Fatick Kaolack mu teg xeer wu njëkk bi entreprise bi commencé ko liggéey loolu dama ne woon su ma ñëwee Ndoukoumane dinaa ko seetoog yéen li ci des nag mooy li nga xam ne moom la sànq defe naa ne ah, sëñ Badi Amar jaar na ci mooy lële kaar yu bees yële nga xam ne moom la président jagale waa Kaffrine mooy kaar yoo xam ne jërëjëf jërëjëf muy kaar yoo xam ne euh, bu doon jar million million bu nekk président ak état Sénégal jël na quatre cent cinquante mille maanaam genn wàll ga def ko subvention pour transporteur yu réew mi am na ci yeneen sous la supervision du ministère des infrastructures à travers l'AGEROUTE et je sais qu'il le fera Inch'Allah Je voudrais également exhorter toute l'équipe du ministère des Infrastructures à poursuivre toujours avec encore plus d'énergie la réalisation des projets routiers et de transport pour continuer à traduire l'engagement du président Macky Sall à servir les populations, à veiller à leur bien-être et à la satisfaction de, vos, de, de leurs C'est sur ces mots que je déclare officiellement lancés les travaux de bitumage de la rue Catherine Ganda et de Wakmuna Koutango Saboya, y compris la bretelle de Kertafa, et je vous remercie de votre bienveillante attention. Ali Mane Mane Gërëm ci moom moo Dieng mi nga xam ne moom nga fi andi comme cadeau ak euh, jàppale bi ngay président Macky jërëjëf merci. monsieur le ministre monsieur le ministre sëñ bi. man damay dem damay dem damay dem damay dem damay dem damay dem damay dem damay dem waay.